Assalamu alaikum wa rahmatullah ñu ngi leen di gërëm ci sen téway ci bëss bi nga xamante ni ben bëss la ci histoire politique du Sénégal bëri won na ñu doon wax di ngañ opposition bi di leen wax ne leen mënu leen and nek benn waaye ñoñu yey nañu leen tay. ànd bi bëggoon nañ ko ci ay weer ca gannaaw waaye ñun ay aji gëm lañu ba ñu ko jéemee sottiwul xamoon nañ ne gënul woon ci askan wi waaye ñu ngi soog a gëm ni tey jii la gën ci askan wi ndax ànd la boo xamante ne nii moo nara libéré Sénégal ndax fi ñu jëm ci élection yi ñu jëm élection législative mu nekk un tournant décisif am na loo xamante suñu ci demeewul d'une certaine façon du ñu am li ñu bëgg ba tax na ànd bi nga xam ne nii nañ ko ak waa wàllu mu nekk comme niñ ko mën a une demande sociale parce que barine Lunui reprochait reprocher opposition bi moins s'en manque d'organisation wala sen nek ben, loolu jëmmal nañ ko tay. Légui nak askan bi li tubab di wax la balle est dans votre camp askan bi mo déssé liggéey bi askan bi mom limbu ñu doon ñaan def nañu ko mom limu wara def it xam na ko te gem nañ ne dana ko def ba tax na it li lu commencer la xalaat nañu ba and bi naka lañ koy jëmmale assemblée nationale bu ñu demee ba gagné Macky Sall jël majorité bi donc pour que sénégalais yi xam ne du loo xamante ne nii dañ ko def ngir xoqatal Macky Sall dañ ko def ngir tiital ko mais lu ñu gëm la te gëm nañ ne danañu dem ci élection yi gagné ko jël majorité au sein de l'Assemblée nationale jëlee ko fi avant 2024 loolu lu mën a nekk la incha allah yàlla danañu ko defal beneen bi moo di ñu ngi wax askan bi ne leen fi mu nekk nii ñoom nelawatuñu amatuñu jàmm danañu def tout pour xajama liggéey bii nga xam ne nii moom la ñuy ñu wax ne leen ci seeni département gën leen booloo ngeen nekk benn def bloc ñun bu ñu jógee fii ni ko Déthié waxee sànq dina am benn directoire dina am aussi ay structures yi nga xamante ne ci la wéeru pour mën a doxal intercoalition bi nga xam ne nii moom mettre en place ba nga xamante ne nii lépp loo xamante ne nii Macky Sall bëgg na ko ngir xajamal liggéey bi bëgg na ko ngir saboter ba ci eh, ba ci vote bi mën saboter indi ay bulletin def mais bu ñu ngi département disposition informer population bi ñu ni au niveau national informer population bi ñu xam ni ñuy voter ba nga ne danañ gagner te li misal misal la buy wane ne maki Macky Sall mi ngi jeex li bok na ci signaux yi yu len di wan len lepp lo xamne ni mi ngi koy def ci njut njaaj dana te challengeu la ñu ak donc japp intercoalition bi nek na lo ni c'est inédite c'est une prouesse Yéwi def ko ak walu donc lolu na nous askan mu nek sen momel ñu jël ko liggéey ci pour jël fi Macky Sall euh, bi bëgg wax ba daf ñu Sénégal nous Sénégal yalla daf ñu depuis 2012 bi mu ñu Macky Sall nga fi comme président de la République te dañuy wax ñaari mbir su nekkee ci nit warul mën a nekk njiit mooy ki nga xamante ne nii fit bi dafa rëcc ak ki nga xamante ne nii xel bi dafa rëcc te ñaar yooyu yëpp dellu na ci Macky Sall Macky Sall ki xel bi dafa rëcc ki nga xam ne nii xelam su rëccee mooy lu mu la wax suba ba ngoon daf koy weddi te loolu la ñu tàmmal waxoon na fi du def frère mu am responsabilité ba mu fa jógee teggi na ko waxoon na ne du am troisième mandat ba mu fa jógee teggi na ko Macky Sall musul wax loo xam ne nii dëggu na musul wax loo xam ne nii am na beneen bi moo di nit su fekkee ne fit bi dafa rëcc dañu naan qui muy laax jaay ngir dëkkam dafay laax di lekk loolu lu muy fi askan bi boppam la fi nekkal la fi nekkal clan wam la fi depuis 2012 te dara du tax mu changé jot na askan bi jël indépendance ñu ngi wax ne jël nañ suñu indépendance en 1962 ñun ñëpp xam nañ ne loolu ay naxee mbaay la 1960 autant pour moi loolu ay naxee mbaay la ñun ñëpp xam nañ ne amuñu suñu indépendance jot na nag ñu jot suñu indépendance li tax ñuy wax indépendance ñu jot ko te lii ñu mettre en place danañu permettre askan wi jot indépendance am dafa am lu suñu gor gu tedd gi Serigne mustapha si doy wax mu nek lu suñu mam Cheikh Ahmadou Tijani Al Maktoum don fatali muy wax ni wax bi da fay laaj déggin fay laaj déggin xamna ne borom xel yu gatti ak xel yu rachitique yi nga xamne ni ñom ñu ngi féeti ci benen côté bi dana dis ci ñom waye dañuy wax ni bour soko baye ba mu nek dëmm

te ñu ne Macky Sall depuis ba mu fi nekkee ba en 2012 nguur gi mu fi andi mooy nguuru jaay te jaay doole googu lii fi mujj xew Firndal Nako. Nako, du moins Antoine Diom def na direction générale des élections def Loulenner. commission de réception des candidatures def Loulenner. lu moylan neex dossier bi nga xam ne ni moom la waa coalition Benno Bokk Yaakaar jox leen dañu ko teg ne ñoom duñu ko caytu parce que jàpp nañ ne loolu day jàll kenn mënu ci dara ñu ne nag yeneen dossier yi nga xam ne ni opposition bi andil na leen ko danañ ci rey seen bopp ba génn ci loo xam ne ni danañ tax ba opposition bi duñu bokk te jaay doole bi wees yemul foofu Antoine Diome xam ni moom arrêté bii mu bind signé ko mu nek arrêté bo xamné ne nit moo ko parce que xam né arrêté bi amul ben légalité té limu ci jublu moy signé arrêté bu amul légalité bu démé conseil constitutionnel ñu ñu ñu rejeté ko ba nga xamné ne liste yëpp dana ñëw jallu lool nak ñun dañ ko ne loolu duñ ci and duñ ko nangu parce que ñun limu mu si ñu liste proportionnelle loolu amul dara lo xamanténi ne nii war na mën tax ñu rejeté ko donte mom période bi nga xamné ne Tolu nako di di di di di di décision attribution la ci liste mu ko wa illa saisir conseil constitutionnel ne len une liste Askan dafa am conseil constitutionnel wax mu jël ko bolé ko def ko ci arrêté ci dara mu

ñu xam ne loolu bu ñu ko defulee dana ñu taal dëkk bi te dëkk bi bu tàkkee dinañu am ci seen responsabilité te comme dañuy wax ci tubaab ne ñoom ñëpp am nañu une un âge canonique loolu nañ ko wuyoo xam ne dëkk bi bu tàkkee ci seeni loxo la nar a jóge ñoom yor almet bi nga xamante ni nii moo taal dëkk bi comme it ni nga xam ni nii yor ndox mi nga xam ni mom lañu wara siw ci dëkk bi pour jamm am donc loolu lañ doon wax di waxit sénégalais yi ne leen le 8 prochain mercredi ñu ngi leen di ñaan ñoon ñëpp ñu and def bloc ñëw place de l'obélisque xamna né préfet bi ah jàpp na ni xeyna ma maa ngi koy gis sax ci revue de presse yi ñu def demb naan préfet bi euh, dafa dafa dafa bloquer Yewwi Askan Wi ci marché waye waaye bloqué wul préfet bi ñu bloquer

ni jaar ci talibi bi nañu jaar ci talibi bi jaar ci géej gi jaar ci géej gi jaar ci jaww ji jaar ci jaww ñu dajé place de l'obélisque wan Macky Sall ne ko jot na nag nga joggé fi askan wi am jam loolu lañu bëggoon wax ñu ngi leen di gërëm ci attention merci beaucoup.